noonu la ñu wane si manifestation yi loolu moo jaaduwul si télévision mu jàpp ne loolu moom moo war a tax ñu couper le signal de de de la de RTS <laughs> laa noonu wax de Walf TV. waaw may masaw suñu mbokk Walfadjri yi mm-hmm. parce que par principe comme disait Jean-Paul kii defe naa Voltaire la mm-hmm. je ne suis pas d'accord avec toi mais je ferai tout pour que tu puisses exprimer ton idée mm-hmm. donc pour man euh, groupe de presse moom sa vocation mooy di wane. di leeral l'information arme la désinformation désarme le silence tue voilà donc pour man euh, dama leen di apporter foofu benn soutien de principe xam nga dëkk bi Diallo c'est man sax sànq bi may njëkkee jël parole dama tayal non seetlu woo ko sax quoi dama tayal parce que euh, dafa am benn vache folle kii Anna Christeva benn écrivain français moo ko doon la dépression nationale dafay mel ni réew mu dof je n'insulte pas les Sénégalais quoi mais dépression bu généraliser wu quoi. fii tu nous insultes. dégg nga non du insulte et je maintiens dire dépression nationale y a une dépression nationale c'est ce qui a poussé le psychologue. qui est dépressif un psychologue a parlé de. qui est dépressif non dafa la kii dama la ko doon woon ba xam ko. ba sa question bi dafa poye. kii est dépressif. non man ay questions yu a une dépression kii est dépressif. non kii est dépressif. foo assumer non non moo kan moo dof. kan moo dof léegi bu nga pare mën kan moo doof non dama koy wan lim mën mën naa ko kan moo doof waaw kan moo doof c'est facile mën non dama la ko bëggoon woon ne la mën naa ko tey soo xoola soo ma mën nañ ne ci tempo bi doo wax du ma wax su ma parole bàyyi ma léegi da nga bëgg raak dafa doon wax dépression nationale mm-hmm. euh, parlant de la société française mm-hmm. c'est que fii dañoo dugg ci benn affaire gam boo xam ne bii nii nit ñi waxatuñu dëgg les gens parlent sont des gendarmes dañoo bëgg a ci nguur ay journalistes yoo xam ne defatuñ seen rôle dañoo tapet ñemetuñu wax dëgg comprendre kii sànq bi muy wax man je ne vois pas par exemple buy buy fàttali contexte 2011 nan affaire manifestation bi dañ ko interdire parce que soxla woon nañ nombre bi mais fii du affaire nombre encadrement quoi problème signature la moo tax gis nga dama ko teel évacuer parce que man yooyu laay bañ ñu ciy dugal quoi amul sens parce que fii dañuy contourner le ngi jaay doole mais loolu wax bu yàgg waxul daaw jég la loolu fi mu jaar a Wade fi mu jaar Khalifa Sall dañ ko condamné pas au sens où defuñu dara mais au sens où timing justice bi quoi tempo bi muy doxee parce que on a pu soupçonner une de liquider des adversaires loolu mais waxu daaw jég la et après et bu loolu passé nag léegi que faire ndax dañuy continuer ci jaxasoo rek mais j'ai vu un président au lendemain de sa réélection animé du souci de de dialoguer avec son opposition comprendre nga non non il a exprimé du moins a am gëmu ko mun naa am gëm ko parce que am dina ñëw ci kaw Idrissa Seck xam nga mais dama a émis moo tax ma ne émettre son opposition a cité de la République Abdou dafay mel ni Sénégal mi ngi commencé ci 2014 bi Ousmane Sonko juddoo ci politique parce que ñu ànd ak bon xarañ entre guillemets parce que xarañ mooy li ngay def ndax am na sens il prédispose l'opinion à adopter ñoom li ñu bëgg ñu dégg ko. dañuy concevoir ay éléments de langage dans des officines bëgg nit ñi dégg loolu ku waxul loolu ñu saaga sa ndey nga daw tapet dégg nga ku waxul loolu parce que dafa am lu bees lu ñu am benn jumtukaay mooy réseaux sociaux yaa may dégg réseaux sociaux mooy permettre koo xam ne ne bu Thierno Diop di romboon ni yeboo ko nga am di nga mën ko saaga ñu profité ci loolu ba intellectuel bëri daw dama koy xool yenn saa damay suivre des saa yenn professeurs yi tey dañuy wax lii si Sonko di ko raay bu subaa ñu wax contraire bi nga xam ne lii bu doon université duñ ko jàngale mais ndeysaan dañoo ragal moo tax yéen intellectuel frileux yi restez dans les salons parfois quoi ngeen bañ ci jël parole publique parce que li ngeen di jaxase léegi dafa bëri et nag moo conduire benn genre pensée unique bii nii tey kuy wax rek da ngay wax lu arrangé Ousmane ko xam nga buñ fi toogee naan li Ousmane Sonko drainé ci ful mais on mesure ça à l'aune de quoi Kër Massar damay laaj rek ñaata nit dafa nekkoon ak Kër Massar wax ma wax ma rek yow dama la laaj wala kenn dimbali parce que man ma tontu ma ñaataa fan nekkoon ma laaj ma tontu waaw ma tontu. meetingu Kër Massar. waaw damaa bëgg nga wax ma ci anal politique. waaw meeting moo mus a drainer monde bu toll noonu. non laaj mais da may wax d'abord ban nombre la ma je peux vous dire que Ablaye Wade revenant de France en 89. avait été accueilli par un million de personnes. 99 99 non waxuma 99. présidentielle dafa dem France muy ñibbisi. Hmm. un million de personnes ñoo ko accueillir. ñu ne day jubal palais. après am na benn affaire bu am diggante mag Jean Collin ak suñu bàyyi Ahmed Khalifa Niass ba Abdoulaye Wade renoncé yaa may dégg sa plan bi mu établir woon boo demee ci livre Abdou Latif Coulibaly euh, un meurtre sur commande sur affaire Babacar Seye yàlla ko yàlla. meurtre sur commande Abdou Latif Coulibaly waaw un meurtre sur commande ñu ngi ko ciy raconté. on parlait de ay un million de personnes bi Abdoulaye Wade di jógee France en 99 justement bi ngay wax noonu. Hmm. mais

ful bi fan la nekkoon ak Wade. kii ndeysaan fekkeewul nawetu daaw bi xam na adresse yi senn moom bi mu duggee ci politique. nekk ma dëkk ci Adwaar ci Ousmane Sonko bi la duggee ci politique xam nga kii fan lay wax. respecté xam nga moom fan lay wax. moom bu 2019 bi lay wax. non bu ngeen wax moo bokkul waaw. kii 2019 bi lay wax. 2014 mais aussi. aéroport yow kii bu dee pardon pardon. kii kii bu 2019 bi lay wax. xam nga bu 2019 boobu benn amul wuy ma. marché Ablaye Wade on était présent da ngay déglu. waaw dama may may gën non duma la may dag ma interpellé. waaw dama may nag yaa may may non da nga naa ñëw. non c'est vrai da nga ma la non defal la non defal la tu manipule quand il il faut il faut manipuler non da ngay manipuler wax naa jamais fait un match qui a drainé autant de monde que de Keur mais c'est faux li nga on était présent. li nga wax match bu la ñun ko baal ma ñëw wala da nga créé woon say match yu nit ñi gisul naat moo xam li ci dégg ba moom li ngay wax amul Thierno Diop li ngay taxawul mam amul benn événement politique bu fi drainé mbooloo comme meeting Kër Massar yow kanam bàyyi sa manipulation yi yow li nga xam ne ba gërëm di ñoom bàyyi sa manipulation yi tu manipules les gëléem njool la bu yàgg te coquette amut dégg ñu wax la gëléem yi ñee leen sut foofu. sa formula deux balles yooyu. mais il faut que aussi ñu nekk 2023 c'est-à-dire mënuñu jël dara tout le temps on parle de 2024 ñëpp ñu remonté non li wax sax dafa taxawul. déedéet damay dégg saa ko tey non dafa taxawul Thierno Diop boo waxee taxawul dañ la koy wax. mais sûrement waaw d'accord léegi mais bàyyi Thierno moom s'il vous plaît Thierno. tu manipules sànq dama doon dama doon manipuler nga dagg tu manipules dama lay dagg. xam nga ñun góor far rek waaw waay waay ànd ak Ousmane Sonko bu falu. ñu man loolu sama néew. man gisuma xam ku fara ku faru mais dañoo nekk fii pour wax Sénégal man xawma ku fara ku faru. da ngay analyser ma analyser xam nga su ma ne la Ousmane Sonko kenn topp ko kon samay nag dikkul am na ñu ko topp bien sûr. am na mbooloo mosuma wax loolu loolu mais comparaison yi ngay def laa wax. non parce que indee guo xoolal Thierno Diop boo tegee dara da ngay teg lu concret munoo toog rek naan marche bi marche bi te ñu fekkee ko ñun ñëpp. defal ndànk dañuy wax lan. marche bi la dañ ko fekkee lan nga wax kii. ay ma bàyyi du ma xam nga dafa am Ousmane Sonko benn plan bu mu nekk yaa may dégg ci communication et c'est de bonne guerre il fait la politique léegi il faut donner impression que ne moom rapport de force moo ko remporté sur Macky Sall léegi foo mu taxaw wax garsa garsa déjà rek fi mu ko émettre rek mbooloo bu xam ne nii mën na empêcher état def li muy def loolu nekku fa léegi après sax yow bi mu fa jugee xam nga kii wax na ko sànq nee na bu jugee fii nag après dafay doubler non bi mu paree ci manifestation boobu sur place ay marche genre marche la def yoo xam ne moo waroon ëpp fuul mbett tekaa dañu ko doon acclamé mais démb bu ko xool image yi padois day gis car rapide yi dem manifestation dëgg bu serré oto yi du dépassé mais la manif quand mais manif la mais leader politique bu yore. ñaata yow xale yi bëggul digg ñu ne jaar leen de non pas doon c'est pas dama même interdit aux jeunes de s'approcher de la mairie kan kan nga yow yàlla def na yow mosoo jiite oui man yow loolu soxlawuñ koo xam fii. xam nga manifestation nga jiite yow ban noo jiite loolu jàll na xam nga nag. waaw waaw man tey damaa ñëw ne damay dal mais jiite non non non yow fan nga toj ban manifestation nga jiite bàyyi li ngay def léegi may ma ñëw lan ay grève non non bu la ay grève lycée waaye ñëpp xam nañ ko à deux balles non non mais tëj na une heure chaque jour nga glorifier sa bopp manif loolu duñ la bàyyi duñ la bàyyi. ngay glorifier sa bopp ci lu taxawul. fenn du ma yow wax waay sama jëm ay sa bopp sama jëm amul solo xam nga fii lan la si war a wax voilà waaw lu si war a jàngat waaw man de Ousmane Sonko kilifa la tey dafa te am lu mu tekk ci dëkk bi hmm. président Macky Sall tekki ko waaw Khalifa Sall tekki ko ak Karim Wade hmm. fi jamono toll man nag foofu la sama crainte nekk du on bi ngeen koy jugé yéen hmm. xam nga dama ne la sànq. Diallo baal ma rek ma eggal foofu en deux parce que on m'a beaucoup interrompu. waaw mooy solos wax ji quoi. Hmm. voilà on m'a beaucoup interrompu ci ay waxu kasaw kasaw. soori war a paay. comme ni ngay def comme ni ngay def nit ñi rek. xaaral ma comme ni ngay def nit ñi rek c'est pareil. lii nga may def gis maako bi fu ma toppee c'est comme nii la rek nii ngay def nit ñi. terrain xoolal nee naa terrain bu ma maîtriser la. tu parles pas. waaw may bàyyi ma bu ma jël te temps parole boo bëggee. bu ma toppee Mboro jëm ñaajo ma continue d'accord parce que il faut que tam. mais parce que nii la ma doon def foog mu am élégance di déglu. waaw d' accord mais saa yi moom léegi Touré sama xarit Touré Manding ko. Mm, léegi nga Touré Manding Mori la. Manding Mori. waaw léegi tënkal la ñu dem bul bul wax. tënkal la nga fa laa tiitee nag de. fenn kese la. waaw mooy li xaw ci jamono adduna bii nii. Mm. dama dégg sëñ Pape Malick ma ne ko réew buy màbb. ku jëkk a tëb rek yaa daaneel sa bopp muy sëñ Sarr muy toog ak major képp kuy kilifa tey Sénégal nag. waaw dafa jot rek ñu déggoo ci dëkk. parce que gis nga remous yi am euh, ci géopolitique bi yaa may déglu si que tey ci at dafa xam nga ñun li nga toog fii di wax mais Europe xam nga la mooy débat bi ndax arme nucléaire dañ koy dóor wala duñ ko dóor. Hmm. mais dafa am loolu lu ko jiitu. Hmm. mooy xool da nga jógee ci guerre commerciale. Hmm. sino américaine. ñuy wax ci guerre boobu effet yi coronavirus am. dégg nga. coronavirus boobu noonu la lii xew am. Mm-hmm. d'accord ci affaire affaire Ousmane Sonko bi ci contexte boobu la amee. mais dama ñun nature crise boobu. Mm-hmm. ñi ngi ko gëj a dund. depuis ab bi ñu amee indépendance ba tey dunduñ ko. Mm-hmm. la lii am xam nga. donc je crois que affaire Adji Sarr yooyu élément déclencheur la rek quoi mais dafa lu mu caché. léegi nag fi am solo mooy ba tey nii on n'a pas fait Sénégal crise yi ñuy yi ñuy topp yëpp on n'a pas fait le bilan de crise. crise coronavirus boobu mu am ay latéralité ci économie. am ko ci lépp lépp lépp tey je crois bi. dañoo war a tirer benn conclusion ci loolu ñu avancer te conclusion mënul weesu nag. ci kaw Ousmane Sonko bi c'est que man xam nga lan laa mënut a ba tey man. ci li ñuy wax Macky Sall nag bu dee même dictateur la ban opposant lañ mës a woo ci yoon rek mu ne moom du mës a jàkkaarloog yoon. xanaa kay da ngay dem ba pare ñu xool ne dañ la attee yow salfaase say droit mais principe du ba jàkkaarloog yoon tam quoi loolu. Mhm. foofu la problème bi nekk nag quoi. dañu waxantee dëgg rek. parce que dafa tombé ak président boo xam ne dafa nasaxal justice. Euh, kii ni Senghor naxasalee justice. yaa may dégg que ni ñu naxalee justice su nguuru Senghor naxasalee wuñ ko ci nguuru Macky Sall. yaa may dégg que. Mhm. ni ñu ko naxasalee ci nguuru Abdou Diouf. Mhm. naxasalee wuñ ko ci nguuru Macky Sall. d'accord Idrissa Seck. ba fekkente ne moom nga àndoon ak démb xam nga dafa neex rek Abdoulaye Wade ñu tëj ko ba doyal génnewaat bi mu nee dafay dell dellusaat Pérez ñu bàyyi ko Macky Sall mi xëy na moom tamit bu seen pexe juboon mu dem kaso. d'accord léegi Macky Sall li mu def ak Khalifa sàll ak Barthélémy Dias dama ko ciy yokku. Mhm. ak euh, kan kii nu mu tëddee kii euh, Karim Wade. Mhm. dañ ko yàgg a dénoncé. dañ ko mos a na leer. waaye léegi nag xam nga am après. nguur Ablaye Wade dañoo tere candidat comme ni ñu ko tere Khalifa Sall en 2019. nga ne dañ ko tere. ndax nguur Ablaye Wade. waaw amoon na candidat bu ñu teree dem élection. waaw mais xam nga nguur Ablaye Wade non da nga ma da nga wax ma déglu. déglu ma avec nga wax. da nga ne justice bi waay bu neex la ma ñëw. waaw da nga ne justice dama lay tontu pour cent dans les sondages avant muy fekk Ablaye di toog ak moom. est-ce que bu toog ak Ablaye Wade day am 29 pour cent lu mu dee day xam nga. hors contexte ngay def. non non ban contexte. du benn. non parce que débat bu profond laa lay woo. non non bul bul approfondir. bu ñu ko tëjee ba pare. lan lay wane ni kër Abdoulaye Wade di waxtaan ak moom waxtaan boobu ban conséquence la am ci électorat li ngay wax ak li may du benn. non benn la on parle de justice. mais justice laa la wax. waxuñu politique. mais justice laa la wax. dama da nga ne justice si nax saayul ci. kan eh. ci ci Wade. ci Senghor ak si Diouf dama ne la est-ce que Wade à son époque. waaw est-ce woon na candidat. waaw dem élection. comme ni ko Macky Sall defee Khalifa Sall. waaw xam nga xam nga modalité yi. la lay wax non tontul waaw wala déet. non xam nga tontul waaw wala déet ni avancé. ma tontu lan waaw wala déet non vous n'êtes pas. le protocole. non non le détenteur du protocole. non non pour induire mes réponses dans un sens ou dans un autre. non non induire ma say réponse dama la poser question. non non yow. man je juge que da nga intelligent donc su ma la poser question dama laaj question nga ne ndax Wade mais autre temps mais autre mœurs dafa am Wade tam nu mu naan def ak adversaire am yi Macky am na muy defar adversaire am man nee naa la d' accord ma ci li ñu def ay Khalifa Sall yooyu xam nga d' accord naa ba pare wax loolu ba pare. tontu nga moom mais waatu mu doxalee ak Moustapha Niasse ni mu doxalee ci affaire Sonacos bi xam nga attitude bu modestie amoon humilité bu Moustapha Niasse am dafa bon kilifa moo tax du may dafa daw yaa ngi dégg sa mais maintenir accusation yi kooku tax Ousmane Sonko buy def défi par exemple xam nga. merci beaucoup encore que ñi ngay wax candidat. mais nit ngay am quelque chose contre moom. merci beaucoup contre Ousmane Tanor Dieng xaw ma ko. c'est clair c'est clair qu'est-ce qu'on a fait contre laa gis ñu jàpp ko. te moom dafa wuy ji wàdd dans quelles conditions. loolu nga war a interroger yow. pour aller dans la profondeur du